une de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay suuf yi bari na ci dëkk bi boo demoon tribunal bu Mbàkke wala Njaaréem boo laajee la ci ëpp cooy suuf la loolu nag na dëkk yi ni mu nekk benn titre foncier moo ko indi waaye faw ñi defaat ci yitte góorgóorlu ci di seet danaa am commission boo xam ne danañ ko ci xalaat tëral ko ci ñu seet nu ñu ko gën a noose bokk moomati kër kenn du ko nattal bi waaye dangay gis génn kër ñetti borom moom ko mm-hmm. mu lënt boobaa ka koy atte sax day jafe ci moom te loolu chef du village sax mooy li leen gën a soxla ndax te lu nosu tegu ci woon leer rek noppal ñëpp kon ñoom ñu ngi leen bàyyi bàyyiloo xel loolu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 deux cent mètres bii suñ saylu ko xalaatoon loolu itam la mu ci waxoon dafa wax ne Touba daa wax ne buñ doxaatee fii ak fanweeri at réewum Sénégal dana mat nangam million lim ko mm-hmm. wax ne bu waaye murid danañ ci mat nàngam murid mm-hmm. yi bu matee nangam ci limite ñay màggat si boo ko nattee la sëñ bi waxoon dana dem ba ñiy màggal seen ëpp fukki million jëm kaw mm-hmm. mu ne loolu nag buñ ko sóoraalewut nag ni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 waaye mën na indi bu yàqu-yàqu gu xóot goo xam ne du neex a ndax ki jënd kër moo ko moom mm-hmm. yàlla def na ci tawfeex nag ndax Touba titre foncier la titre foncier moom xam ngeen li daraja ji mu am kon ku fi am it dangaa moom rek sëñ bi bàyyee na ko waaye waxtu neexee sëñ moo dindi ko bu ngeen gisee Serigne Saliou banque yi mu génne woon ko corniche bi bon loolu la ci yoon rek ndax nee na yi de ñoom ñi ko moom ñi ci ëpp duñu jullit te ñeneen yilif dëkkuñ ci réew mi waaye nag du loo xam ne lu ñuy xeex ci doole la lu ñuy lijjanti cim xel la ndax nee na buñ ma mënalul dara it damaa sama njaboot dafa tasaaru ci àdduna buñ ma mënalul dara it mën nañoo sonal sama njaboot bi ci biti mm-hmm. kon loolu yëpp itam ñoom lu ñu xalaat rek tëral ko rek fu wóor lañ ko tey kon loolu itam nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndax loolu bokk na ci liy sàmm dëkk bi Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer